fu ñuy waaw mooy ci retour Boy Niang que xam nga sëñ Moussa xam nga li wax waaw Boy Niang nee na Reug Reug waaw sama moroom waaw mosuma yab waaw sama mag ñi ma bëreel sax yabuñu ma ba sama moroom di ma yab to maa la ëpp doole maa la daqa bëree to maa la ëpp sañ ci biir géew dëgg la la ilaha illallah sëñ booy ñaa bi muy bëri ak Sa mm-hmm. dafa am benn boutique boo xam ne kër gi ma dëkk boog boutique bi ñoo jàkkaarloo mm-hmm. ma dem di fa jënd mm-hmm. am moo fekk moo xam ne fan su mu fan su Sa la ba dégg la ñuy waxtaan ci làmb ji may naa ah, làmb jooju jeex na ba pare ñu ne ma ah looy wax li sëñ bi may leen jeex na dëgg la booy ñaa da koy daan booy ñaa mu naa ma ne ko damaa gis damaa gis ñu ne Tapha Gueye mooy arbitre combat boobu noonu yaakaar naa ne ba combat bi jeexee dañ ne Tapha Gueye moom moo moom moo jox Boy Niang <laughs> euh, kene bi ko dan waaw waaw xam nga kon loolu leer na nañ leer na nañ sëñ Moussa waaw mbër bu entraîné ba da ngay xool ca kanam ga ca kanam ba bu fekkee kanam gi néew na nga xam ne kii daan naan ay doom waaw dëgg la waaye fekkee ne gis na kanam gi boobu kon nga xam ne kii dafa entraîné kon ñuul kuk doy nek ci do xool do yi doo yi do yi mun cee toog. waaw yi ni waaw. Boy Niang. waaw. liggéey na. na de. Boy Niang mais si Ibu. waaw wa Pikine nak dina len sani ay xeer. waaw est-ce que xam nga ne dañuy teg xel. waaw dañuy teg xel lan lañu waxon waxoon. waaw dañoo génne Boy Niang dafa febar waaw ndike Boy dara jotu ko dafa dem entraîner ji. wa mais wa Pikine sa waxuñu ko. ah. waaye déedéet. nan noo ko wa loolu koy loolu koy loolu koy loolu koy ki ko wax kay eh, eh, ak eh, ci ci Fadam Thioune laa ko déggee. waaw ndeysaan. sama waa Fadam Thioune moo waxoon loolu. ah man de doy na waar. waaw waaye Pikine wax waa Pikine mosuñu wax loolu. est ko ci kañ yi ndax Fadam a kañ yi chaque jour dañ daan def ay live ci diggante boo ñaa ak rek. kañ kañ sax kañ ci boobu moo weddi moo weddi Fadam. ah moo weddi Fadam. waaw. ah kon kon kon kon Fadam fa mu jëlee information boobu baaxul. waa Pikine leen dong lañ li mun a sànnee xeer. waaw. mooy que ne ba Pikine jaxasoo dëgg dëgg dëgg sëñ Moussa ak sëñ bu ñoo ko dindi. waaw loolu de am na moom. ñun ñoo leen woone ñun ñoo leen wax ne woote leen seen biir ngeen waxtaan seen biir. waaw. àndu doon benn xàccandoo dóorandoo daf na ngeen doon def démb. waaw. su ngeen ko defee bu soobee suñu borom ku ngeen songu daan ko. wallaay dëgg la. yaakaar naa ne bañ ko waxee la waa Pikine booloo. waaw waaw. yaakaar naa ne ci ñaan la amee ci la amee la. dinañ ko may victoire contre Amar Baldé ak ak Gri Bordeaux waaw waaw kon yaakaar naa ne mbooloo mooy doole mhm. waye sëñ Moussa hmm dama lay xamal le Reug Reug Boy Niang waaw combat bu doy waar ngi non sëñ Moussa doy waar bu doy waar <laughs> combat boo xam ne sëñ <laughs> euh ñaar la ñoo xamne ni ku ci nekk ci ñoom fi mu da nga yaakaar yaa mun sa morom wallahi deug la ku ci nekk da nga foog ne bu arbitre bi nga daan sa morom ñibbi waye sëñ Moussa waaw ah man daal xam naa ne rëg-rëg nee na talaguma booy ñaa maa ngi ci sama tubaab bi waa dëgg la ndeysaan waaw waaw moom itam bu ñibsee dina tontu booy ñaa waaye li ma la mun a xamal daal mooy comment boobu ñoom ñaar nag buñ demee ba nga xam buñ buñ ba ba comment bi ñu commencé génn ñu doog a dugg na ci combat rëg rëg ak booy ñaa waaw gars yi nañ ma baal de waaw waaw ma daal di ma wax si nag loo xam ne dara du ko dindi waaye li ma la mën a xamal daal mooy sëñ Moussa. waaw. la ma waxoon rek laa koy waxaat tey. lu mu mën mu mën a mu mën a communication bi na ko def. daa mel ni dëgg na la nag. waaw waaw waaw moo ko jig. dégg na la de. sëñ Moussa. waaw. Olof Ndiaye dafa am lu mu wax. Hmm. nee na du feeñ ci biir taw. waaw waaw. te bu fekkee danga am foofu bëgg a dem. Hmm. da ngay dëgg la. combat boobu noonu. Mhm. combat la boo xam dina am xeex dina am bëre. waaw waaw. xay combat boobu ci ci bëre sax lay jeexee. jël bu rëy. dëgg la <coughs> mais si Ibou. waaw. comme rëg-rëg itam doomu Sénégal la. waaw nekk fale nga xam ne mooy Dubaï. waaw. am benn euh, ceinture boo xam ne wala benn trophée boo xam ne mu ngi koy waaj a bëre. waaw di ko bëre ak doomu. Thailand xawma doomu Amérique daal. waaw kon foofu yaakaar naa far mën na faa am. ñu ngi koy ñaanal. waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax. drapeau Sénégal lay porté. drapeau Sénégal lay porté. verte zone rouge. voilà. góor ak jigéen mag ay ndaw képp kuy Sénégal. Mhm. kuy Sénégal di sénégalaise. waaw. ñaare Omar Kane Reug Reug boobu yàlla suñu borom may ko ndam. ndam ci combat bi dem. ndamam ndamam boobu suñu ndam la. waaw waaw. defetam suñu defet la. dëgg la de ñukoy ñaanal combat bi nekk benn round mhm. mu kaw waji mu kaw waji mu jax daanu kañ ba waw waw mu dor ko mu dor ko mu kaw ah dafa am jom mu daan ko jël bu rëy rëg rëg mbër la rëg rëg dafa am jom champion la ndaanaan la or père ho rëg rëg bo xamni ni bu jappé bëre bu bu bu bu jàppee day bëre waaw waw rëg rëg waw su jappé sa ngemb dina bëre ak yow billahi du chaahan su jàpp sa ngemb dina bëre ak yow man len rek la def lu ma naqari siñ ibu waaw leen rek la rek rek def lu man ma naqari. waaw bàyyi bëre simple. waaw bëre simple xam nga boo xam nga tey dafa mën di bëre. rek rek bu dugg si woon simple da ngay bég. waaw mais yaram bi moom mën di bëre fi mu nii. wallaahi. léegi nag fi mu toll nii mu ne nag xaaral mu ne nag xaaral ma concentré na ci lutte avec frappe bi. wallaahi ak MMA bi. waa ak MMA bi moo tax fi mu toll nii nag ñooñu dañoo compétir ba nga xam ne nii mbër mu ñuy bëre duñ dute. déedéet. waaye nag dañuy bëre ñaari ndaanaan ñoo daje booy ñaar rek rek combat tax combat dañ leen bëre ba naaw ñoom ñaar combat bu garaaw a garaaw sëñ Ibu danaan xeex danaan bëre combat bu garaaw ngay gis danaan xeex danaan bëre sëñ Ibu combat moo combat booy ñaar rëg rëg am na ku ma woo am na ku ma woo demb ah koo xam ne ni euh, euh, ci rëg rëg la far waaw xarit xam la nee na ma daal rëg rëg ma ne ko waa mu ne ma sëñ bi noo ko gisee ma expliqué ko mu ne ma léegi bu ñëwee naa fexe mu mu jokkoo yow dëgg la ma ne ko maa ngi koy déglu incha allah ño xam yor mo xam muy boy ñaam mo xam ku kuma ci woo daal ci katan yalla yent bi waw ñom ñaar nak amna na koo fuñ toni taxaw na ci ndam lool taxaw na ci ndam suma woyé mën na ko dolel waw waw mu gëna a dëgg taxaw ko ci ndam aussi suma woyé mën na ko xala muy depp ndam loolu fossé waw waw waye nak ñom ñaar dal combat bu neex la combat bu doy war la dëgg la de wa rahmatullah ngoy yeen wa aduna képp ko abonné ko rek dawal ci ngoy tv nga dem abonné nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko Ngoye TV c'est meilleur Ngoye TV leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si